dafa am information buñ leen di jox muy fii ci guy siyaare gi nekk ci marché Ngiraneen tey dañoo xëy xale yi gis benn koor boo xam ne daa nekk ci ndox mi xale yi daw yuuxu wax ko mag ñi ñu daal di woo police woo sapeur sapeur nag ñëw na fi ànd ak police police def na constat bi ba dem sapeur it jël nañ ko yóbbu waaye nag loolu it lii bettuñu ndax li ko waral mooy ndox mi dafay yàgg yàgg na fi lool presque lu mat ñeenti weer yoo xam ne ndox maa ngi fi. te daa bëri sapeur pompier macha allah jàmbaar lañ boobu ba léegi ñu ngi fi nekk di pomp di tàllal seen i raakool di pompe waaye ndox mi daa bëri bëri waaye goo xam ne daanaka ñoom mënuñu ci dara moo tax nag ñu ngi sàkkuwaat ndimbal bu baax a baax a baax ci autorités yi ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu gën ñoo jàppale ci ndox mii nga xam ne moo nekk guy siyaare lu mat nangami kër yoo xam te ni kenn newut seen kër depuis ca tam xarit ba léegi kon nag loolu ñoo ngi ciy sàkkuwaat ndimbal parce que lii yéeme na te doy na waar te ndox mi fi mu ne ndox moo xam ne nit faatu na ci ba commencé yàqu moomu ndox continué waat bëgg a nekkaat ci quartier bi loolu moom ñoo ngi ciy sàkku ndimbal bu baax a baax a baax ñu dimbali ñu ci. parce que lii insécurité mënu ko weesu yooy tong ci ndox mi mooy dugg ci suñu biir kër yi damay wax ni maanaam ñi nga xamante ni ñoo génn seen i kër sax ñun ñu ne ci quartier bi ñoo leen gën a sonn parce que ñun ñooy nooy xet gu bon gi ci ndox mi ñun ñooy nooy ñooy sonn ci yooyu daanaka koñ bi kenn wérul ñëpp a feebar kon na ñoo ngi ñaan service di d'hygiène mu gaaw ñëw def inter intervention kilifa yi ñëw ñu daa di xool nu ñu renforcer sapeur pompier ba dooleem gën a bëri ñu monté waat fi ay yeneeni pompe ngir ndox mi mën fee jóge kii mooy chef de quartier bi mooy sang jaañ moom mii mooy délégué bi man maa jiite xale yi fii ci koñ bi Lamine Diaw laa tudd ñoo jiite ndox mi boobu ba léegi ñu ngi ci nekk ba mu tàmbalee ba tey ñu xëyuñu ñu yendaluñu muy siñ sang mii ak siñ Abo Mbàkke ak moom mii ak Ibrahima faal ak mbooleem xale yi ci koñ bi ñu too ànd boobu ba léegi deltuwuñ ci ginaaw waaw mbir mi de mu bett ma lool wax dëgg yàlla sama rakk ji di sama lépp Lamine jaw moo ma woo ne ma ndax yaa ngi sa kër ma ne ko waaw ne ma daa am jiyee ju fi xew bi ma dikkee itam fekk ko fi comme ni ma ko waxee lépp ñu fekk ci biir ndox mi Eh, sapeur nekk fi police nekk fi ñoo àndanteeg ñoom si loolu comme ni mu ko waxee daal nu biñ ñu ko eh, biñ doxee li ñu war a dox ñëpp ba pare itam ubbil nañ ñu war na nañu ko noog bàjjenu gox yi waaye vraiment mënuñu ko xam parce que dafa dëpp te it bu yàgg gi xëy na eh, li mu am si ndox mi moo tax kanam gi neexut a xam ni nga ko war a mën a xamee malgré loolu lañ si mën a xamee xëy na daal lu ñu jaaxal daal. waaw lii moom nu ko fii dogo xam ni nun diir bi lañ fi nekk ak léegi mosu fee am te ñu ngi ñaan yàlla mu yem fi ak jàmm xanaa ni ko Lamine waxee. maanaam autorités yi nga xamante ne saa bu ñu jàqee si ñoom la ñuy yaakaar ñu gën noo dimbali ba ndox mi jóge fi parce que man kat njàqaree ngi may gën a doog a dab nag bi nga xamee ni tàbbi na si ñu yor ay njaboot gu sew yor nit ñoo xam ne dañoo wéradi ñu nekk ci biir koñ bi ah euh, la sa dolliku mooy euh, mbedd yi ni ko Lamine waxee. tey rek sappoor bi mu waree dugg ngir jël ci koor bi amul menn mbedd moo xëy ne mën na fee jaar ba ak ci fi koor bi nekk nga xëy ne dañoo mujj def ay e, sacrifice ba mën a génne koor bi yóbbu ko ci oto bi loolu dansé bu ko gën a mën a euh, bu gën a rëy amul kon bëgg nañu ñi nga xëy ne ñoo fi autorité yi di commencé si euh, sous préfet sous préfet maire ak mboolem seen action ak mboolem ñi nga xamante ne ñooy seen i conseil ñu xam ni lii dañ leen la war a def itteel dañ cee war a def seen lépp loo xamante ne moom la ñu mën ba ndox mi jóge fi ndax tàmbale nañu ñaanu yàlla dara xewaat fi waaye nag on sait jamais dara wóoru ci kon nañ ñu jàppale ngir jëmi Serigne Touba nañ ñu jàppale ay jàmbaar lañ de ndax loo xam ne presque ñu fi bëgg a def deux mois yoo xamante ne guddi ak bëccëg fi la ñuy fanaan mais benn machine ci loo xamante ne nangami kilomètre moo ko wër fenn fa rek ndox dafa ball loolu neexut a jël kon nag nañ ñu dimbaliwaat parce que kere bi ñuy mujj ak ñoom di ne dañoo bëgg bu lii ñu dikk concentré wu si ndox mi ndox mépp jóge fi wax dëgg yàlla loola amul sapeur képp lañ fi gis muy benn machine boo xamante ne mu nu dimbali jàq nañu tiit nañu jaaxle nañu te ñoom rek la ñu yaakaar pour ñu mën noo dimbali comme ni ko Lamine waxee ñëpp génn nañu wenn naqar rek lañ am te amuñu lu may fii kon nañ ñu si dimbali njàmbarloo rek lañ si am moom nag sapeurs yóbbu na ko constaté nañ ko xool nañ ko waaye mu exactement mënuñoo xam kan la xam nañ ne daal jigéen la normalement boo ko doon peese tey si li ñu gis war na ma am 40 ans wala mu am lu ko përi ndax commencé naa bi jaaw waaw commencé naa bi jaw kon kooku du retour xele léegi nag magam jëm moonu bu fekkee moo dem ba dugg si ndox mi ndox yóbbu ko fu mu dem naka xele boo xamante ne sept ans la am wala six ans la am wala dix am loolu kon nañ ñu si dimbali ndax njàqare ji nag mu ngi doo ko tàmbali sunu njaboot gi. li ñuy jooytu daal moom nañ ñu dimbale ba ndox mi jóge fi ndax fi mu doon nii moom ci danger lañ ne ndax yeewu ñu ne nit dee na ci kër gi loolu moom kenn mënatu koo xam dañoo yore xale jigéen ñaa ngi xëyi te ñun fii lañ am ñun boobu ba tey xoolal tam xale ñun suñu kër ngi nii fii ndo wane gi ki fi dee nii sama rakk goro la ñun suñ kër ñoo jëloo ñun benn kër gi benn benn famille la te ñun biñ tabaxate ba bis bi del si lañ génnoon fii fii kii deewee ñu ci kër gi la bokk waaye biñ tabaxate ba bis bi del si lañ génnoon ba léegi si ñi ngi sonn sonn dañoo abal fuñ dëkk boobu ba tey ñi ngi jaaxle te fi mu doon ne fii ñu ne nag moom moom suñ suñ dootul nelaw guddi ndax xale yaa ngi dañuy jàngi di jaar di jàll ndax fii lañ am benn mbedd la yoon bi mënoo fexe ba doo jàll te waaye lii dañoo sonn sonn nañ ba ci kanamu yàlla lii nag war nañ ñoo xool dimbali ndox mi dem sonn nañ mën a at bu jot ñu génn ndimbal gi lii sëñ bi joxe comme ni ko kii wax sëñ Mor Sow waxee xaaj bi dañoo jot xaaj bi joxut liñ féetal nii kenn jotul li sëñ joxe kenn jotu ci waaw pompe bi war nañ caa mën a wax ndax service d'hygiène bi war na nañoo mën a ñëw pompe ndox mi ndax fi mu toll nii xale yi kenn mënu leen a ndox mi te nit fu nit dee xam nga ne moom effet effet lay def waaw te xale moom mënu ñoo fexe du duñ dugg ci ndox mi war na ñoo mën a pompal ndox mi nag ndax nit ku dee te xamuñu kañ la dee te xam nga ne ko xam ne mag la kii magum jëm la man gis naa ko te jigéen la war na ñoo mën a dimbale ja jàppale ñu ndox mi jóge fi sonn nañ te fi mu doon ni mën nañoo xëyaat ñu ne ñu nit gisaat nañ fi nit ndax lu nee ngi ci kenn xamul kañ la ndax bis bu sell ndax kii dee xamuñu nañ ko fee teg xamu moo fi indi boppam kenn xamul nu mu demee te it ëllëg mën nañoo séentu ñu ne keneen dee na fi ndax ndox maa ngi fi ñett weer lu ko ëpp waaye nag lii dañoo ëpp doole kon nag ñoo ngi sàkku ci état bi mu gën cee taxaw gën cee jàpp parce que lii métti na trop kii mu ngi faatu te kenn xamul ku mu doon ñi xam kenn xamagul kan la nga xam ne nangami fan mu ngi ci ndox mi biñ koy bi ko sapeur yëkkatee ba dem sax da gis daa am loo xamante ne ci yére yaram yi daan commencé rocci ko di sotti ko ba peel lañ jël di ko gas kon loolu danger la ci ñun lool ci guddi yi ñu toll ñun waa guy siyaare quartier maam asawalu euh, quartier maam asawalu 3 déedéet ñun xamuñu fii la dëkk ndax parce que kenn xamut lu mu mel mag la moom ndax daa bi jaaw jigéen la it nag maanaam dañoo xëy rek xale yu ndaw yi ñëw ko gis biñ ñëwee daan ni eh kaay leen xool lee daa mel ni nit la biñ ñee daa mel ni nit la yenn ci mag yi ñëw ñu ni daa mel ni nit la ba tey sax xamuñu woon ni nit la ñu daal di woo police woo kii bi sapeur ñëwee nag ci la ñuy soog a xam ne lii kat nit la waaye kenn xamutoon sax ni nit la ñun biñ ñëwee ay sagar lañ ko teg ak ay morsoog nangam mais sapeur nag bi mu ñëwee moom ba àggal ci boppam ci lañ soog a xam ne ndekete lii nit la. te koñ bi ni ngi dund jafe-jafe ci ndox mi jafe-jafe yu metti mhm. te boo seetloo li nga xamante ni mooy recensé bi nga xamante ni sëñ bi defoon na ko ah sëñ Muntaxa defoon na ko ay ndimbal waa koñ bi jot nañ ci seen wàll mais état bi bi mu defee recensé ba tey ba jusqu'à présent fii dégguma kenn ku ci jot message boo xamante ni nag état lim waxoon ne da koy joxe ñun jot nañ ci. loolu tamit ni ñu ciy lancé appel di leen wax loolu lan moo ko kale parce que dañ ko danoo def lancement rek am ñu jot seen missance boobu ba tey kenn jotaatu ci benn dërëm. loolu tamit niñ ciy interpellé sous di ko laaj ba xam loolu lan moo ko kale ba nëgëni seen diggante la ak banque wala ñoom dañoo jotagul xaalis bu ñu war a jox wala déet parce que nit ñi yàqule nan te jotuñu seen i ndimbal jotuñu seen ndimbal ba pare niñ ciy ñàkk seeni i bakkan te jàpp naa ne ndox mi ku fi ñëw image yi ngeen di gis ku ko gis xam ne Guy Jaare sonn nan quartier Maam Asta Walo sonn nan kon nag li nga xamante ni état bi génne na ko akas néew di leen ko jox nan ci jot nan ci jot nan leen ko jox yàgg na yàggaay boo xamante ni kenn xamul lu ko kale ban defee seen lancement ba tey nag kenn kenn ku la mën a wax fii ni jot na ci benn message boo xamante ni ndimbal la ñoom ci ñoom ñun gisaguñ ko ba tey lool nag ñu ngi ciy lancé autorités yi ñu lijjanti ko su fekkee ñoom ak banque la wala lu mën a doon parce que euh, ni nga ko jaarale woon ci Wizall Money ba tey kenn mënu fee jot sa benn message loolu tamit nag nañu ci dimbale bu baax a baax ba xam lan moo ko kale lool maa ngi ciy interpellé bu baax a baax.